نجى قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى هجى قلبي من خيال قد سرى بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول rasulillah sayidina wa habibina wa nabiyina muhammad wala alihi wa sahbi ajmain mbokki paal asalaamualeykum ñi ngi nuyu ñiñ ci fekk yëpp jiital ci nag suñu baay suñu xalif suñu kilifa di maam Ousmane Ngom di ko ziar di teg ci loxoom ziar bi pour mu jàllale ñu ko mbooleem njabootu maam Rawane Ngom jàllale ñu ko mbooleem ku dëkk Paal ak foo munti nekk ci àdduna di am mbégte teew fii tey fekk fiit suñuy kilifa ak suñuy soppe waaye fekk fi surtout suñuy mbokk wax na ko délégation bi ñu àndal délégation bu xaw a yaatu la ndax ñi ñuy àndal di yëngu ci liñ ñu gën a ràññee muy politique daanaka ñi ci nekk ci département bi yëpp ñi ngi fi waa Ndar waa fas waa Gandon daanaka daal commune yëpp ñi ngi fi tey ñëw gunge si ñu leen di gërëm ñoom ñëpp ci tertu bi ak dalal bi waaye it ñi ñuy àndal ci politique te bokk ci coalition bi te ki ko gën a mandargal muy honorable député Abba Mbaye teew nañ fi ñëw gunge si ñu ñu leen gërëm ñoom ñëpp di leen uh, wax ni rafet lañu rafetlu nañu seen taxawaay rafetlu nañu gunge gi ngeen ñu gunge ak jàppale bi ngeen ñuy jàppale parce que nit ñi dinañu gis ci biti rek naan diw diw diw waaye dañuy wax naan peccum gone bu neexee dafa fekk am na ku téye ci mbagg ya te yéen ñii yéen a téye ci mbagg yi kon ñu ngi leen di sant bu baax li honorable député Abba Mbaye wax dama leen koy delloo rek ndax loolu du kilifteef gu ñu am ci yéen du ndogal gu ñu mën a am ci yéen waaye cër gu ñu joxante la te li ko lal mooy ay principe ak ay valeur ak jikko kon ma leen di remercier ñëpp. di ñaan yàlla mu boole ñu jàppale yéen yi nga xam ne ñu ngi leen doog falit yàlla jàppale leen seen mandat di am mbégte teew fii parce que dama teew ci sama kër ndax deret dafa foor yàlla def na ci suñu jaar-jaar feneen lañ yoroo fu xaw a sori fii moo tax miinuñu fi loolu nag ci njaboot day am ndax njaboot day màgg nit jóge fu ne nit mun a jóge fii dem fu ne dëkki fa sanc fa ñi fiy jigéen it nit mun a jóge fii dem fu ne sëyi fa moo tax dina dem ba njaboot gi tasaaroo ba ay nit dinañu daje te duñu xam seen mbokk waaye bu waxtaan soree rek ñu gis ni ndekete bokk nañ lu bari loolu nag moo ñu dal ci paal ndax miinuma histoire bi waaye lenn moom xam naa ko mooy suñu maam ñun ñëpp di alaaji yuqu ngom defe naa moo meññ euh, sanu ngom ak baara ngom baara ngom moo njaboote euh, euh, alaaji rawan ngom di maamu sama turandoo bu ñaaw bi si ngeen ni ma ko dàqee sama cousin la nag waaye li ñu niroo mooy li sama sa may nekk xale suñ toogaan di seetaan suñu wonee boobu Ousmane ministre la buñ ko wonee rek mu ne ma gis nga suñu ñundu ngomeen yi ñundu ngomeen mooy bakkanu ngomeen gis ngeen nuñ ko nirooy maak moom waaye maa ko dàq nag <laughs> sanu ngom moom moo njaboote ñépp ñi ne man mii ci liñ boobu laa soqe ko mooy sama maam Duudu Ngom bi nga xam ne moo jur sama yaay Xadi ngoom ci Sanu Ngom lañu ñu soqe ko donc mun naa ne Alaaji Rawan ngoom bàyyi la ci man ndax moom ak fi ma fe féete man ñoo bokk menn maam muy yuqu Ngom kon su ma ñëwee fii sama kër laa ñëw donte miinuma ma fi ni ma ko waroon miine ndax damaa yeroo Casamance li ma wax léegi rek njaboot day tas ku ne nit dem fa sanc toog fa waaye ay at a ngi nii ñu commencé di ñëw di xamanteeg waa dëkk bi commencé kook suñu kilifa gii nga xam ne moom la fi yàlla teg balaa mu fiy nekk sax ki fi ne woon di e, uuf e, njaboot gi ba moom ni ko fi yàlla tegee te yàlla na ko fi yàlla bay lu yàgg-yàgg noonu lañu ñu commencé di xamanteeg dëkk bi di miinanteeg dëkk bi ba ñii ñëpp nga xam ne ay nijaay lañ ci man ñëw jàpp ci li ñuy liggéey ci parti bi ak moom mi nga xam ne euh, euh, tonton Bachir moom mi féete côté Thiès nga xam ne jaare jaare na ci sama rakku yaay muy Adja Beti Ngom ba suñu miinante am ba ñuy teew ci ay xewam yi nga xam ne da koy organiser fële ci Thiès. kon suñu kër lañ ñëw te war fee ñëw tamit muy ci gàmm muy ci ziyaara waaye bu dara amul it war nañoo mën a jékki-jékki ñëw nemmeeku si moo tax mbégte bu ñëw lañ bu rëy lañ fi ñëwee it euh, ci bés bu toll ni bës bi boole si mbégte bu rëy lañu am ci ñëw fi giseek waa dëkk bi yëpp saafonteeg ñoom giseeg ki nga xam ne mooy suñu xalif maam Ousmane bi ma ñëwee léegi rek dama ko napp daal di di joggi tànk bi mu xëccaat ma ne ko maa mën de <laughs> waaye mbégte la ndax saa yi ma fi ñëwee nag daf may dalal comme kuy dalal sëtam dina kaf ak ñun dina waxtaan ak ñun dina bëreek ñun te loolu ci oyofam la bokk ndax kilifa la goo xam ne fii mu féete munoon na ne li yëpp duma ci fekk mais bu ñu ñëwee day mel ni ku nekk ak ay moroomam ñu ko ciy gërëm bu baax. di ñaan yàlla mu bàyyi ko suñu kanam lu yàgg yàgg oyofal ko yen wi lépp li nga xam ne ay mbébétam la ci li mu bëgg a def fii yàlla nag ko yàlla yombalal ndax donn maam rawaan ngom yombut du lu yomb de ndax koo xam ne foo dem ci àdduna bi di nga dégg turam ci li mu liggéeyal diine liggéeyal ko islaam liggéeyal ko tariqa tijaan kon loolu du lu yomb waaye nag am nañu yaakaar ni te li ñu gisagum sax dal na suñu xel mooy fi suñu maam tegoon tànkam rek moom mii fala teg tànkam ànd njaboot gi yëpp nag ñu jàppale ko ci kon vraiment kontaan ñëwee te di sàkku ñaan saa fi ñu ñëw ñëpp xam nañ ñëpp bu ñaan la ñaan gu ñu nangu te xam naa ni bu ma ñëwee bu ma ñëwul it ñu ngi may ñaanal loolu xam naa ko moo tax ñoo ngi wax amin rek saa su waaye bu ñu doxee ba egsi fii dañuy gën a tàllal suñu loxo ci bës bu ni mel ak ci waxtu wi ñu nekk gën di sàkkuñaan ñaan saa su ne ci eh, yàlla jàppale ñu ba li nga xam ne yéene la te di yéene gu baax mooy luy defar rek li ñu bokk ñun ñëpp yàlla jàppale ñu ci musal ñu ci seytaani ki pexe noonu te gën ñoo jubboole it ak ñi ñu ànd ak parce que dafa am loo xam ne mbirum booloo la du mbirum nit bu wét mbooloo nag foo ko dégg lu jafe la waaye bu yàlla dëppalee xol yi rek bu yàlla jubóole ñi ko séq rek lépp day yomb après moo tax loolu dañ koy dañ koy sàkku it ci ñaan mooy yàlla gën a euh, defaraat suñuy sàppe gën a gën a serré yi ba nga xam ne dinañu doon lu mel ni ay ay bantu bale ndax dañuy wax ni bantu bale boo ci génnee moom dong neex naa damm waaye bu ñu leen dajalee jox la bale gi boo ma dina jafe nga damm kon loolu daal lañu ñu bëggoon wax ci kaddu gu gàtt di jéggalu ci kaddu yi bu amee lu ci dëng ndax it euh, du lu ñu miin di wax ci jotaay yu mel nii wax ci li ñu gën a miin moo ñu gën a yomb waaye nag lu ci dëng ci ñun la euh, kontaan trop ci ñëw bi. kontaan ci dalal bi ngeen ñu dalal di nuyu waa dëkk bi yëpp di feddaliwaat suñu ziar di ñaan nag papa suñu coordonnateur bi nga ñaanalal ma ko moom it Modou Mbène Guèye ku baax ku sawar la waaye ku jub te ku xëccewul dara la bañ na saa sa suñuy tabb pour war a dem ci élection day lànk moom kenn ko tabb du élection maire du élection député du benn élection ñu leen koy dénk moom ni leen dénkee suñu député Aba mbay ak député bi nga xam ne comme dëkk bi léegi am nañu député donte bokkuñu parti ñoo bokk opposition ñu ngi leen di ñaan ngeen yokk leen ñaanal ba yéen bi nga xam ne tegu na seen kaw te Sénégal yi am yaakaar ci ñoom ñu mën ko dëkku ci ni mu gën a rafete asalaamualeykum wa rahmatullahi wa